di attaqué ay nit dof ñoo la nek a nekk période di patriote di ñu sam morom taxaw ñoo ñu seen gëremu ñu leen yow loolu sa yoon si vie privée jambu chaque jour ñu wax nañ ko politique waru and ak loolu lan moo tax ngeen bëgg seen yi ngeen di def nii te xam nañ la bu baax amoo xëy amoo dara nekk di attaqué opposition bi nga fi nekkee te bu tey nga naan faroog pouvoir bi faroog kenn sa poche nga faral xam nañ la bu baax baax te booy bu nga yow xaw ma jàllo nga sant xaw ma noo tudd noonu mais booy bu reew nga bu ñu daje woon naa la ko wax yow xamoo sa bopp bu ñuy wax ngay attaqué ñoo xamante ni dañuy wax te yàlla tax faruñu fenn waaw di wax di analyser Cheikh Bara li mu gis si dëkk bi lay wax da jàpp ni ku wax dëgg rek dafa contre Macky Sall loolu pour lan bàyyi leen seen yëfu naafiq yi ngeen di def di attaqué nit di ko topp nii ba mu sos te amul leen lenn loo leen ko mën a attaqué du benn idée lu dul ay wax yoo xam ne tekkiwul dara. kenn xamula ba nga ut bës nag ba ko utee si Sonko surtout yow mi sant Diallo moom yow it yow Aliou Sow ni ngeen nekkee ngeen bàyyi ko bàyyi leen seen ni ngeen mel Sénégalais yi dofuñu jeunesse bi dofuñu xam nañ bu baax ki ñuy topp ak ku ñuy topp loolu lañ bëgg ngeen xam ko mënul leen ñu divertir.